ginnaaw bu ñu génnee ci seen match bi ak Njàmbur ba jëlee fa benn poñ ay Pikine daal di dooraat lii di ay entraînement am ci stade Alassane Djigo ginnaaw loolu moom entraîneur bi moo ngi ñëwaat ci jongante googee parce que donc match la boo xamante ne xamoon na ne dafay metti parce que vu que Njàmbur année daaw yàggul dara avant Covid bi di ñëw dafa ñëwoon fi mën nañu fi 2-0 ñu ñu ñu remonté ko gagné ko 3-2 donc loolu rek contexte la boo xamante ne déjà xamoon nañu day doon match bu compliqué. et wala bi match bi jegee tamit journaliste yi ak presse bi yëpp liwaat nañ match boobu tegaat ko suñu kanam donc man ci loolu sax dama ci briefing ak xale yi ma ne leen les gars euh, tey ji na xam ne match bu metti moo ñuy xaar parce que déjà. njàmbur gars yeewaat nañ li nga xamante ne mi ngi doon nelaw seen biir ñu tegaat ko ci presse donc loolu man jàpp naa ne source de motivation lay doon ci ñoom parce que bu doon man tamit day nekk source de pour samay xale donc voilà. ngir waajal seen diggante ak Gorée ñoom ñile di ñu xamal ni yees nañu ngir gagné. boobu le match. donc euh, nekk na match boo xam ne aussi que ñu ngi koy préparé sereinement donc parce que gore tamit dafa jóge ci défaite donc euh, du du doon match bu yomb ci moom. du doon aussi match bu yomb ci ñun donc ku ne xam na ni championnat Sénégal mu match yëpp final la donc ñu préparé ko comme niñ ko doon préparé yeneen match yi parce que on prend match par match. mais aussi duñ ko yenn parce que championnat la ñu football donc 24 journées la donc ñun nañuy 26 journées du moins nañ jël suñu temps ñuy peaufiner li ñu war a def rek jàpp ne aussi gore équipe la boo xamante ne respecté nañ ko trop mais aussi dañuy xam ne ñun suñu suñu dëkk lañ nekk suñu terrain lañ nekk war nañ mën a marqué ay points. te li gën mooy ñu marqué trois points du tax nag ñu ñëw déjouer wala ñu ñëw di def di n'importe quoi mais li ñu bëgg mbébét ko waxtaan ci xale yi di ci liggéey mooy ñu am trois points te dinañ ci dem ak teg ak tey ak dal aussi respecté tamit équipe bi nga xamante ne moom la ñuy recevoir xam ne match de football la rek mais liñ ci war ñun ñu jéem ko def pour yàlla may ñu ci ndam te ñu ngi liggéey pour loolu. ren gii nag nga xam ni mbas mee waral ñuy joué match si ba tax lu ñu mel gën lu leen. waaw loolu dëgg la ndax ku wax AS ndax ndax li ci li ciy gën a yokk tey damay faral wax ne AS Pikine bu amee victoire rek ah gra supporters yi am nañ ci part de responsabilité bu rëy parce que ni ñuy poussé équipe bi la mais nii nii nga xam ne amul supporter dina xaw a mais si sama gis-gis warul am warul am inc warul garaaw quoi parce que tamit. football moo demee noonu xëy na feebar bi moo tax xam nga supporter du am mais man xam naa ni suñ supporter AS Pikine dinañ seetaan match bi mën nañ ko seetaanee ci beneen fànn mais ñoom kenn du leen nettali match bi quoi. d'abord ku ne xam na ne AS Pikine c'est presque c'est tous ses ressources c'est c'est ci supporter lay jóge donc ñoom it aussi loolu waroon nañ ci xalaat waroon nañ ci fédération bi aussi ak ministère bi ñu ngi nekk di ci xalaat. donc démb j'ai suivi une mission bi nga xamante ni nee nañ si bu ñu respecter les mesures comme il le faut d'ici peu de temps aussi mën nañ ñoo dimbali ñu ñu respecter distanciation yi may gars yi ñu def ay supporters mais ci côté boobu moom ñun lay gën a impacter parce que ñun ku naa xam na nii. bokk nañ ci équipe yi gën a populaire ci Sénégal naam buñ ci gënul populaire donc il faut que aussi ñu tenir ñu xalaat ñu si parce que genn wàll équipe yëpp ressources yi ci supporters yi lay jógee. mais aspect familialisation bi ñu amoon ak supporters yi nga xamante ni ñu jox cër lañu donc tey jii bu Pikine demee ba nga xamante ni ñu ngi koy tudd fu nekk loolu supporters yi am nañ ci doole mooy suñu ginnaaw ñu mooy suñu deuxième force mooy suñu douzième force mooy suñu onzième douzième force douzième gaynde comme ni ko gars yi waxee. donc ñooñu ñun ñu fonk la man li ma ci gën a métti bu dul aspect financier bi sax aspect la boo xamante ni tey jii supporters yi du ñu mën seetaan ci seen équipe lu mu doon lu metti donc euh, vraiment loo xamante ne la daal mu mënoon na ñàkk mais aussi doonul ci ñun doonul ci état doon ci kenn parce que mbas bi mi ngi aussi présent doo xoolee mesures barrières yi ñuy jël ak yëpp ñuy jël vraiment donc loolu tax na ne tamit nañ ko respecté ñu def ko xam ne aussi euh, mbas bi yàlla wàcce la nañuy dem avec peut-être d'ici peu bu ñu joué 3 4 journées bu fi gars yi gisul dara gis ñu fi kaa gis ñu fi dara dinañ bàyyiwaat supporters yi ñu ñëw dund ñoom tamit seen passion parce que lii nii seen passion la te leen di manqué et ñu ngi leen di ñaanal daal ñu dellu si waat jàmm ci tribune yi seetaan seen équipe. kaddu gi di benn bénéfice AS Pikine ndax soo leen laajee seen objectif ren gile lii la ñu lay tontu. objectif bi mooy ñetti trophée ñu teg faaw ñu duñ cee bëgg benn quoi waaw parce que tamit xam nga mun ñu fi nekk naan maintien maintien maintien rek xam nga dafa doy quoi affaire ñetti trophée lañ teg dañuy ñaan yàlla ñaan yàlla lu mu dee dee dee sax ñu am ci benn. bokkul ak daaw bi nga xamante ni man dama doon toog a ñëw donc euh, li ma gënoon intéressé mooy ma def ma def maintien mais ren dama bëgg daal ak équipe bi yëpp bëgg nañ ko ak joueurs yi et tout dirigeants yi li nga xamante ni daal Sénégal mooy dañ ko fi teg comme trophée en l'occurrence euh, championnat coupe du Sénégal coupe de la Ligue donc ñu jël ci benn. mooy mooy sama premier objectif sama objectif majeur nag aussi mooy que AS Pikine commencé placer ay joueurs ci sama air man parce que bëgg naa euh, ren balaa ma fi jóge man wala xaw ma kañ laa fi mën a jóge ñu commencé ne AS Pikine kat couchement bi mu fi nekkee joxe nañ ay joueurs fenn joxe nañ ñaar ñetti joueurs fenn moo tax man may promouvoir xale yi dama bëgg ren daal di jéloo xale yi lu ci ëpp pour que ñu mën di leen placer pour équipe bi aussi am ay ressources yoo xamante ne moom lay dundee parce que jàpp leen aussi sur la plan financier métti na métti boo xamante ni ku ko ku ko waxul da wax la parce que AS Pikine Gorée bi c'est sûr que AS Pikine danoon am 3 millions ci match bi donc imaginez équipe bu doon xam ne bu daan recevoir dina am 3 millions wala 4 millions manque à gagner bi énorme la donc li ñu mën a def daal mooy placer ay joueurs ci suñuy objectif la nekk ñu dem à l'extérieur pour équipe bi am koom ñetti trophée yi nga xamante ni dañ koy teg ci Sénégal fii bu ñu amul benn ñu am ci ñaar wala ñu am ñett yëpp bu ñu ko yàlla maye. bon comme le coach Mass ni mu ko waxee rek objectif bi mooy pendant ci ci les trois trophées au moins que ñu gagné ci une donc voilà parce que population Pikine waaye loolu la ñuy xaar ci ñun loolu la ñu soxla aussi xam nga Pikine moom bëgguñu bañ a am trophée donc lépp lu ñu xëccoo dañ ci bëgg am donc objectif bi loolu la sur les trois trophées ñu am ci au moins benn. et aussi euh, fexe maintenir équipe bi. AS Pikine war a jàmmarloo si dimanche gi ak lii di US Gorée moom mi nga xam ni daa jóge si défaite si digganteem ak génération foot ñuy xaarandi rek fan la ndam li di mujj si diggante ñaari club yi.